ginnaaw bi ñu leen nuyoo su yéen sunu mbokku journalistes yi li ñu dajale tey li tax ñu woote point de presse bi mooy syndicat bi dajale pharmaciens yi nga xame ne ñoo nekk dans le privé pharmaciens yu Sénégal yi ñooy ñëw tey pour euh, dénoncer lépp li nga xam ne mooy euh, àqu ak yelleefu docteur Aïcha Ngundiam Mbodj yi nga xamee ne tey jii kii di IPRES kii di direction de la pharmacie et di médicament dañ ko jalgati IPRES moo ko luye woon immeuble bi ne ko en 2015 libéré immeuble bi parce que dañ koy liggéey biñ ko ko waxee janvier 2015 balaa muy génn li si waroon yëpp def na ko informé na direction de la pharmacie informé na ordre des pharmaciens informé na aussi bailleuram pour nekk maa ngi dem waaye man maa am priorité ci local bi te loolu droit dafa am lu muy signifier foofu te am na solo li tax mu def ko donc ñett bi mu leen informé ba noppi li nga xam ne moo war ci sunu métier balaa kuy jëlee sa pharmacie ci fi nga nekkoon di ko yóbbu feneen même bu doon ay mètre rek la li ko waroon yëpp def na ko defar na dossier déposé na ko direction de la pharmacie ñu instruire ko ba ordre des pharmaciens ni waaw d' accord nañu pour madame Mbodj jóge fii dem fe bu tra ba le temps travaux di pare. loolu moo tax ñu ne direction de la euh, de la pharmacie et du médicament nga xam ne mooy suñu kilifa ci mbir mi dafa jalgati li tax mu jalgati mooy dafa jël tey pharmacie boobu nga xame ne dañu woon pharmacie dakaroise génnal bu ñu ñu dañuy defaraat immeuble bi jox ko beneen pharmacie muy pharmacie nation te texte pharmacie li mu wax sax si transfertu pharmacie waxul sax nga jël fu nit nekkoon joxe ko mais dafa ni booy transféré pharmacie war nga respecter distance bu toll na tant de mètres moom nag waxuma la sax respecter distance waaye dafa jël fu pharmacie dakaroise nekkoon nii dama fay teg tey pharmacie nation loolu muy li nga xamee ne tey jii ñun syndicat des pharmaciens privés nee nañu lu mënul nekk la condition yi war a tax ñu transfert pharmacie respecté wu ko ñu ngi fàttali ne grande pharmacie dakaroise 1953 la nekkoon foofu maanaam defe na fa léegi mu toll xanaa si juróom-ñaar fukki at te wax nañ ko léegi tamit bi muy génn comme def na li ko war yëpp jaaxal daf ñuy jaaxal tey lu tax kilifa gi nga xam ne moo waroon def yoon tey moom mooy jalgati yoon mooy jël benn pharmacie bëgg ko fa teg ndax moom li ko waroon yëpp bi muy génn wax nañ ko léegi def na ko bu ñu paree ci wala bokk gannaaw direction de la pharmacie et du médicament moom ki moom immoralité li woon ko ko mooy IPRES aussi dafa jalgati li tax IPRES jalgati mooy suñu demee si acte uniforme OHADA mën nañ jël sax article 101 wala toute la partie la bi nga xam ni moo concerné mbirum bàyyi commercial ak fonds de commerce dafay wax ne nit ki bu dee fi mu nekkoon di fa def di fa liggéey liggéeyu commerce am fa bàyyi commercial daf fa jógee ndax dañuy defaraat immeuble bi su paree moo am droit de priorité moom lañ ko war a joxaat wala ñu ko joxaat keneen sauf xëy na condition précise te condition yi benn amu ci ndax madame Mbodj bi ko IPRES ne d' nañu te loolu mi ngi am si 2018 directeur général IPRES moo ko signé te lu directeur général IPRES su signé day engagé IPRES du nit ki fa nekkoon mais IPRES la donc IPRES wax na ko en 2018 que d' accord nañu bu liggéey bi paree nga ñëw jël place bi te lii sax lañ la koy luyee ak yëpp ba mu d' accord ni leen léegi bindaat leen moom tamit te courrier yëpp am nañ ko ne leen d' accord nañu moom d' accord na si liñ ko laaj pour mu fay ko léegi nañ ko defal pré contrat te chèque bi nga xamee ne sax mooy fay caution bi pare na loolu mooy ñetti at jàpp ñeenti at yu topp bi mu génnee mook IPRES ñu ngi eggale di waxtaan pour joxaat ko local bi li xew nag mooy 2019 ah IPRES xëy suba rek ni ma joxatuma la ko pharmacie nationale laa koy jox ñu jàpp nag ni IPRES amu ci benn sañ-sañ pour def loolu amu ci benn sañ-sañ parce que moom mi fa nekkoon wax nañ ko léegi am fa presque 70 ans juróom-ñaar fukki at pharmacie bu nekk fa di liggéey moom moom lañ ko war a joxaat ndax yoon moo ko ko may te yoon boobu wax nañ ko léegi mën nañ dem seeti acte uniforme article 127 surtout article 127 mais yenn article yëpp dina wane ne moom mii tey jii moo nekk ci dëgg. Euh, syndicat pharma yi ëmb pharmacien yi tey li muy wax mooy du ñu nangu benn bailleur maanaam képp ku mas a nit wala pharmacien mu nekk ci liggéeyam nga xëy suba génnee ko ndax dañuy defaraat mu pare nga bëgg fa dugal keneen. jalgati boobu lañ ne duñu ko nangu mais en même temps aussi dañ naan duñu nangu tamit autorité bi xam ne muy direction de la pharmacie sañ am bëgg jël sañ-sañu place bi nga xam ne moom lañ ko jox depuis 1953 du ñu tay si di ko fàttali jël place boobu tey bëgg ko jox beneen pharmacien ñun loolu tamit duñu ko nangu donc ñaari jalgati la IPRES jalgati na direction de la pharmacie jalgati na tey nag syndicat des pharmaciens privés ak pharmaciens Sénégal bi taxaw nañu temm ni jalgati bu mel nii du jàll. te li ñuy laaj mooy contrat bi nga xamee ne IPRES def na ko diggante moo pharmacie nation ñu annulé ko te loolu tamit docteur Aïcha Ngou Ndiak ak avocat ñu ngi ciy liggéey tey sax fi ñuy wax ak yéen ni am nañu rendez-vous tribunal du commerce si mbir moomu donc na ñu annulé contrat boobu mais aussi moom nañ ko defal contrat parce que loolu la yoon wax te loolu mooy droit wam amu ci nag aucune possibilité de négociation du ñu nangu négocier ci dara ci loolu lépp li nga xamee ne yoon may nañu ko ñu mën ko def pour xeex dinañ ko def te ñu ngi invité sunu mbokk pharmaciens yi Sénégal yëpp sañ nañu sax ne képp ki nga xamee ne tey jii dëgg moo la tax a jóg nga ñu jàpp ci pour que lii jóge fii parce que bu rombee pharmacie bi problème de santé publique la parce que yàlla def na ne organiser nañ pharmacie de sorte que ñu ngi liggéey correctement fu nit ñi buñ soxlaa garab muñ ko am mais lii ñuy séen mu commencé ñëw bu eggee bu buñ ko bàyyee mu wëy xëy na ëllëg dañu am problème pour am ay garab yu baax te am ni ñu ko war a amee.